jërëjëf jërëjëf ay doy laay jërëjëf bay dooñ jërëjëfati ee laa hãy nói lại nhớ nhớ mấy lời ta cho nghe nghe la chờ đợi nhớ hãy nói lại nhớ nhớ bây giờ Gelecek, bayım bayım, bayım, bayım, gelecek. sama may xalifu nabi Musa duna warisan waxat ka sa sax man bay sulaay manzila fa bilaay walaay isaaru rahmanu maniban minalaay ilalaay sannan tawakkula wa man fi rasulillahi نال مكانه أبو إمام لا آخرا وولا يرجع سمام الإمام اسمك لباس العابدين مان يا رحمة الله كن لي إن رحمانا مملي الإمام مولاي وسبخ بدا من تلأتي سيد الورى كرو ولا شمس ولا خمر ولا نجم لا ولا سمام ولولاك لا خلقا في ملك إلهنا جرى خضره في الكائنات مؤمل يا جنتم كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم الله أكبر عيسى جلنا بانغتونغني يا ليرال يا هو شمس نور هو شمس نور والبرية عند ما Sidi Mursalina ya xaway xaway yàlla nu yàlla xamu sax may wax maam yaa ko gën maam sa maam may Seydina Muhammad ya, تقتلي وإلى بغرة سما مي سيدنا محمد alaaji Baye Mbaye Sarr la ñuy woowee sa baay Mbaye looy ajaratu soxna Ndiémé la ñuy woowee sa yaay man nan ka woowee Kumba Jagata Aja Ndiémé sama ma feeñoon dem ca Makka wata ñu bañ diineem mu Medina leer day jolli ba saamaam mbay di nangul na la waa fas gëm na say leer mbay ndooyi samaama dellu feñ yoof ñooña delloo ci bañ diineem mu sañ ca kambireen leer gay jolli ba malika yëmbal nangul na la ndakaaru gëm na say leer ay mbay ndooyi saar samaama yaa rasululaahi muhammad samaama yaa yaa xabibu jibril muhammad sama may yow ma fatku makkata muhammad sama may yow ma sulbi muhammad sama may imaamul mutaqin muhammad sama may xayru diine muhammad sama may nooru diine muhammad sama may munal noor muhammad sama may munal kufaari muhammad sama may awlan bi ay muhammad sama may aaxiran bi ay muhammad sama may zaydu musalin muhammad سمامي باتون بأي محمد سمامي محين سمامي منجن سمامي مذكر سمامي ناصر سمامي منصور تنرقوي آمد محمود عاقب إجليل taaha yaasin muzammilun mudassirun abdullahi abibalahi safiyalahi najiyalahi kalimulahi xaajal bi ay wa imamu mursalin samam nabiyun la rasulun xayna amdin wa sayidin xalilun xabibun miso lay sa yuxlanu jërëjëf jërëjëf mbay ndoy laay jërëjëf ay mbay ndoy jërëjëf te Babacar laay jërëjëf ndoy ndoy sëtu yónneen baay Samba nee na sama may siiru naa ma ku sopp maam njoon saay bul kiram ne ne ñu màggal Sidina ma njoon ku la way ku la way am gënëm wa Yàlla jalla jalaalo kon duma ci teg dara sax ñaan rekk waaye defe naa tey bi ñuy euh, taxawal lii am na koo xam ni itam daf ci jàpp muy Fat Cissé mu ngi dëkk fii defe naa li mu def tey defe naa mérité na ñu gërëm ko xëy na bëgg nga sax waaye ku def ñu gërëm la waxuma li mu def lépp lépp bàyyi seen otoom sax otoom da jël jox gaay caabi def ci essence defu na ci dara lépp macha allah kon moom itam ñu ngi koy ñaanal ñaanal itam Baye Ablaye mi ndax këram la ñu libéré jox nu saal bi jox nu lépp ba may ñëw sax ñu nuyoon te mën a ma kër gi sa kër ñu ngi koy ñaanal moom itam di ñaanal dëkkandoo yi ndax léeg-léeg nga taxawal lu mel ni xëy na am na ñoo bi waaye lenn rek lañ ci jub mooy kii dëdd fii ak waajuram yi ñu xam ñun li ñu am moo taxoon ñu indi bayit yii nga xam ne benn waykat moo ko woy maam Mariama muy wayu yéeme yoo xam ne xëy na euh, mënuma ko yaatal ndax temps bi ci benn bayit laa nekk te des na waaye pour si moom bayit boobu rek ñu mën a comprendre ndekete moom la yàlla tànn ci kaw ba rek jël maam ko mu day tekk nii indi ko ca kër moo tax kuy àtteeb xeex doo songo moo tax bi ñu ne jaayu leen gañ a ngeen Seydou laay mi ngeen jàngoon feeñ na waykat bi ne Isa bul moom ngeen di jàngoon feeñ na bu ñëwee Mahdi yooyu doon maître am déet ba mu naan leen kay fa antum Isa nazal ibnu Mariam fiikum ba ñëpp di teg waaye mu ne wa imaamukum minkum kon am na ñu jarul leen di tudd waaye ni Cheikh Mbacke waxoon ne ku xam maam Seydi xam bàyyi laay. kon ku xam maam Faati Mbeng di nga xam kuy maam Kumba Ndoye moo tax ci way woowu ma ne la bi akrami rusli kun naa akramal umam waaw kon kan mooy maam Kumba Ndoye koo xam ni xam nga maam Baye Laay bi muy ganee àddina géej gi dafa neex wallaay géej gi dafa neexoon géej gi yëpp a neex démb maam Aminata bi muy indi Seydina Muhammad fi doom di jaar سيدنا محمد دارو في نيب جانغ نانيو في رمي تيجي دو بورت مو جيتال بن تانك بي تك تي باتي ديس لا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دو لا لاني واخ رافي ان رحسه وفي ذلك رفي ايماء الى كل سوده وانني كم تي مانتي دون دي دون سب سانغار ام دي واي بيمو نواتي في ñu ubbi port ubbiwaat porte maam Baye lay dafa jiital benn tànk teg bi ci des xam nga lu mu wax alhamdulillahi lazi lam yazal maam mu doy di ko xool mu naan alhamdulillahi lazi lam yazal alhamdulillahi lazi maam ku mu doy ànd ci ak moom maam Baye Laay jël jël bi teg ci suuf maam ku mu doy ànd ak moom sujjóot ñoom ñaar moo tax waykat bi ne léppi kéemaani Seydina Limaamu maam ko mën ay témoin la si kon nag pour nga xam kan mooy maam ko mëndoy ku ma tëj wax ji ndax euh, lii di yamul tey rek ñaan nañu comme ni ko suñu bàyyi Pedro waxee ñu dem ñu toog ñu développé parce que ñun on a des arguments yu leer yu ñu mën a développé ci yëpp domaine bu ñu bëgg man toujours moo ko nee naa domaine bu ñu bu ñu bëggee ñun mën nañ leen développé te kenn du ko dindi moom moom maam Kumba Ndoye pour nga xam dayoom martabaam maxaamaam cëram dama lay laaj ci àdduna kan moo ñeme ne maam li maamu demal fa la jox ma la le yàlla rek a ñeme yónni seen alimaam mais ak maam Alassane ak maam Kumba Ndoye ku ñeme yónni seen alimaam am nga cër waay limaam demal seetil ma aw gan bàyyi lay dox kilomètre wala ñaari kilomètre am mam maam limam demal utal ma fele ci àll ba bant nangam ak nangam ak nangam dama ni limam bu dul yàlla kan moo ko ñeme yoon dan ko yabul sax bu koy yoon bàyyi la du jàkkaarloog limam sax banaan kan nangam parce que da ko dul mën a xool lahu wajhun dawrun misla badrin mu dawrun mais wa lahu yalma isla barxin wasala te sax mata tabassama sharu yata la la ka barxin atifin fi du jazum motax sallu ya ahlal kamal ala nabi bahi shama man awa كل المعال باسكو قدره ما زال تقدره عالي مفخم دائما سامي مكرم تجاؤه جاء معظم وجهه فاخا الى يا الواي كدول الوح ديمب كي له وجه دور مثل بدر mudawwarun wa jabinun lahu yalma misla barqin muwassala sallo yaa alal kamaali sallo yaa ibadallah alay salima yow koo gis mu ne ala nabi baahi jamaan mu ne wal Mustafa xayru baraaya mukammala loo ci man kii kii la gis kii kii la gis moom nag sunu maam jooju toujours ma wax ni aw turam da dégg yaa doon na Amina yaa doon na Fatima yaa doon na Mariama yaa doon na yaa doon na mais maam Coumba Ndoye aw turam C O U M B A ñu tudde ko Coumba am de Coumba baat bi rek baat bi boo nee Coumba mu nekk ñaari tur am na lu muy tekki Coumba day am lu li way di may dañ ko may ci tur wi daa am luñ ci dindi ñu ne kumba waaye boo dëppee baat bi ab mooy àbb maam ko mu noy àbb abba aminata abba fatimata abba mariam m o u c mukk mukk àbb mu ne mukk Hmm? am de abba di abba ma abba abba nga ki abba don na ki na mom abba abba mom am ko mari de abba mom moom kay lañ don abba ndax wala radda sa'ila khatun li nasir marjuutul khayru ma mu abba abba mam ko mari de abba to ye ka wax de ndoy digen ko tudde doyen doyen lan mooy doyen ndoy boo ko jëlee boo ko kiyee mooy doyen lan mooy doyen ñu jàng tubaab ah luy doyen mooy ndooy moo tax ci aw turam buñ ci doon taxaw escrabal ci tuuti di nga xam kan mooy maam ko mun escrabal jël tur rek lettre yi nga teg escrabal turu maam ko mundooy laay di nga xam ne moom Coumba Ndoye amul morom moo tax li am yàlla nañ ko xam te ni ñu amee fierté nekk ay lébu noonu la ñu amee fierte gëm ni bàyyi laay mooy démb mooy tey yàlla nañ ko yàlla fay lii yàlla nañ ko yàlla man loo gërëm xale yi sonn nan danaka ay wéré ngi noppal ko wuñu pour bés bi ñun nak liñ ci man jëm nañ ndax ñun dañu waye nak mënu ñu wax la dañuy jël li ñu mën jël rek gaay jël li ñu jël waye ñaanalaat ñëpp gërëmaat ñëpp santaat ñëpp ñaan yalla fay ñëpp seydina limam yalla yalla defar lepp amin yalla yalla yok sutura si dolli xéewal dolli tedda nga dolli teraanga di ko tëj ci mooy nit bu la yàlla teralee toroxal sa nit à plus forte raison ñun ñii tudd ay ñu ma ci terme su pas ndax maam bàyyi lay moo ne xeet a fi mais ci ñoom laa gis sutura silwiise tedd nga teraanga ak barki daa am ñaar ñu doon laalante am ku daan mais li ma gis fii jàpp ma ne ay lëbu lañ summi sax sa yëre ñii summi seeni short dese lu kenn xamul ñun am na si ñu ma xàmmee ñoo xamante ne bii dañu ne sang bi lañ gëm romba jàmmalaay yor seen yooyu ñuy pompe yooyu taal yuuxu xam ngeen ndax xayru xalqilaay moo tëdd fi doomi dëkk bii war nañu mën a nit gañe ci làmb ngeen baal ma de man am na lu duma ko bàyyi mu jàll làmb rasulu sax ni Seydina Limaamu moo tëdd fii te dañu ne barki démboo njaay Tuuba ku fa yóbbu sax kii ñu wat la gaa yëpp defaru doo nga dem dama ne Mamadu Rasulullaay moo tëdd fi chef fi ñëpp ñëpp laa wax àddina penkook sawul nday jot càmmuñ seen kilifa moo seen kilifa koo xamante ni ki ma doon wax léegi maam Seydi mi bu ma saana jóg dëkk man Seydina Limaam bu ñëwee ba ci firaay bi nekkoon day def nii daraa ji wékk ci teg yolamal kaala gi amul droit dindi ko sukk ci suuf di raam Nan libasa laay rasulullah bàyyi laay mubarak di ram ba exi bàyyi laay dal di commencer def ni di jog def ni di jog di jog ba tok dal di nek jak mam Seydi seuk ku mam Seydi manta xool ndax mam limam maamu laay yi ño raw yu jantam ñaata ci kilifa ngeen di gis ñu baye bu guddi ngeen yaakar leen ñom ñu ki kii bu suuf seddee ñu gaari seen oto ñoom summi seen dàll yow foo xam ne ku fay dugg da ngay summi say dàll war nga fee mën a romb yaramu neen yuuxu ci koo xamante ni la mu daan def na ci poosam mu nga këram yow nag yàgg sëy naa limaamu la te ku dem penc may layoo nga da nga jàpp ni ki nga gëm mooy dara bàyyi laay du dara ba yow xiyam lu ñaaw dëkk bi def nañ ko ay Pedro maa ngi koy wax de lu ñaaw xale yi def nañ ko te am na si ñu dañoo ne gëm nañu bàyyi laay man oto bi ma yéegoon bi ñëwee ba nii ñun dañoo obligé maam di as ma àndal maa ngi jëmoon ci kër bàyyi sa liggéey nii dañoo obligé wàcc xam nga xale di ci kaw di jàll di fëgg oto jàmbur di kii ana na làmbaja jeex na du jeex na mais képp ku manqué orma Seydina Limaam xamoo li ngay def dañu masa football booba ñoom Cheikh Mbacke ñii la tournoi ñu dem cees gagné gars yi ñëw yuuxu yuuxu bàyyi seet ne bu amatul bu amatul te boobu xabru maam Seydou nag yuuxu yuuxu xam nga rek xale bàyyi seet ne bu amatul mu loolu moo daan tax ñun mënuñoo gaaw a gagné parce que li ñu yor ñu ñu yor. ñun mënuñu am victoire danañu cëppi cëppi te jekkul fii moo tax sax lu bari ku ñu si oo ñu bañ yéen xam ngeen ni fii dangay gis équipe kuy football ne nañ seeti sëñ bi ñu bari ñu ma xëccool coupe bi ñàkk nañ coupe bi te du du sax xam-xam yi xam-xam yi affaire football yi du sax xam-xam yi gars yi kii lu tuuti te koo ci ne. yàlla nee na julli nangam ñu ne noonu dañ compliqué bu ñu ñëwee nga ne leen bu ngeen demee ci koñ nangam def leen fa nangam koñ bii def leen fa nangam koñ bii def leen fa nangam ñu respecté ko ngir coupe weñ ngoo xamante ni bala ñu am semaine xomaat lu lay dugal àjjana nga koy fowe ala rawati kii ku ci ab laayante bokkoon ci xaaral sa cëre gi ñëw kii kenn du ko manqué respect yoof gii sax yoof laa wax yoof fii ku xam ki tëdd fii am tëgg sax doo ko def ñàkk xam li mu waral bari la gis nga kii al asan salaam vidéo yaa ngi daw nee na ba mu jugee mag dafa ne ñaadam ñaadam jubal fii di xool ndax ñeenti malaaka yi mu bàyyi sa xabru rasulullaay ndax ñu ngi fii ndax kii mooy démb am tey bi mu ñëwee ñeenti malaaka yi la fekkaat fii fii ci yoof am na mag moo xam ni dañu ne peram kurusam moo dagg foofu benn pervereur mu ne sax du ko seet ñibbisi ne bu dee bàyyi laay mooy rasulullah fii lay seeta per bi waaye defe naa dafa nii rek per ba génn loolu am na fii la woon fa màkk ak medina am na fii bu leen juum te jàmmalaay doy na seede muy valable ca Cambérène di valable ci dëkki Seydina Limaamu rafetul ab laayeen defe naa euh, defe bàyyi mat ba sekk wax na ko léegi am na lu laayeen waru ko ay jigéen ngeen baal ma ay yaay ngeen baal ma di yuuxu di cëppi cëppi di tàccu di kii te sang baa ngi te wallaahi gis nga maam Baye Laye léeg-léeg day toog def nii jàkkaarloog ñëpp yóbbu yëpp laa lay wax léeg-léeg gi sax ku daw jàmmalaay romb nii sang bi mu toog nii lay def di ko xool ndeysaan

kenn naa fiy joxe sunu borom xam nga lu tax joxoo sa bopp moo lay jox da ngay da ngay neex damay ñax dem ñax di ñax di ñax ba yàgg ñax yu fenn di gars yi ne retraité nga xanaa mënatoo ñax am koo xam ne ñaxul de waaye ba bu muy dugg biir suuf xéewal gaa gi ñëw laa yasuqul xayra illa la am na lu dëkk bii ni ci mag ñi di wax moom lañ bëgg bu gaaw am de tànk ormal nu sang bi loolu maa ko wax ci kaw tànk ñu ngi naan géej gi nangam ak nangam man toujours ma wax leen jën yi wallaahi azim ñu ngi man naa ngi ne jomma si ñoom aw ma xam sama xam-xam mais li may ñàkk-ñàkk xam-xam wallaahi fii fii ñu ngi mais ñoom ñii dañoo gëm Seydina Limaamu de du ñu fekk ku teramul Seydina Limaam ñu lay teral fi dekk bi ku yeewu billahi soo melee ni nga war a boo defee nii sa dépense génn moo fi amoon fii depuis tóngoor ba fii tedd nga ak teranga fi am fii ku fi mësa ñëw ñu dalal parce que tedd nga ak teranga mat ñu ni ñu mënoon a mel itam hormal ormaaloon lan say naali maam mais nawetaan sax day tas yu xooy foo fi mën a teggi jaar fa ormaaloo sëy naa limaamu te billaahi walla maa la koy waatal ci yàlla dangay saxaar rek mais doo tàkk mu jege peesu nag taxula ñam ci yàppal xale yi am na lu riirandoo ne ab àddina la wax mais bu mu egg seen xol ndax lu ñëw seen ndimbal manuma koon bañ a wax ndax lu dul diine di teggin dëkk bii dañoo war a ormal sëy naa limaam maam bàyyi laay day nee na sunu maam mbay ma daw dañ ko denc fële moom ñu denc ko fii diggante bi kum fi rob yàlla yërëm la kooku yéene na la de moo tax ñun fii da ngay ñëw appel ñu ne ana waa kër Maam Alaaji Maalik su doon guerre rek la dañ naan kenn du ko fi sikkar su doon guerre rek kenn du fi sikkar maam Bàmba su doon guerre rek la Baay Laay ci du abay doom sa dina tuddi sëriñ si waaye xoolal soo fi ñëwee teraanga jeeg tedd nga ji ñëpp la ñu jox seen cër parce que dafa nekk dëgg ci ñun buñ ko gë ragaluñu fi kenn buñ ko gëmuloon tam duñ ko def ñoom ku xam ñoom ku leen xam xam ni ragaluñu kenn mais man li ma ciy metti du lene mais yow mi gëm bàyyi laay bokk ci sëñ Moussa nag nee bokk ci coow li xaw mi xam ni xew moo ko gën xale bu dem nag ba mbër gënal la yàlla football gënal la yàlla yow moomu xislaani dal na la perte nga àddina perte nga àllaaxira ñu bari ci stati yi def nañ ci ñii di fecc ñii di nangam ak nangam te bàyyi laay di bañ fecc ak tàccu ana ki nga ko doon defal xam na la xam na la mas na la oo téléphone oo ko ba xam dina la uyu oo ko est-ce que après ñëw na fii ne leen jërë ngeen jëf kii nag di sàkku sa ngërëm bay tàkk nit jéenéeru moom moo gën junni junni junni asalaamaaleykum wa rahmatullah